doon yëngatu benen bi moy da nek fele ci ginaaw kër sëñ Moustapha Basirou ñu koy wax te taw ni numéro 2 kon japp leen ni fii ñaari jël ñoo fi àndandoo di ci yëngatu la laa won woon la leen ko xamal xamal leen ni lii moom comité école parce que Macky Sall moom jar na lu nek wax dëgg yalla ñu def ci réew mi keneen ku gis ni ñu di wotal keneen wax dëgg yalla kon mëna naa ne sax doo ko yàlla ko yàlla jàppale yàlla na yàlla jàppale. man daal bi ñu ko amee yàlla nañu ko merci nuyu mbooloo mi yéen ñëpp di jiital nag bi suñu kilifa yu yi fi di suñu ministre bi monsieur Abdou Néné Sall di ci teg laa la di ak honorable député Cheikh Tidiane Diouf tubarkalla tey yaakaar naa ni fi mu ñëw kenn du ko laajte kër Cheikh Awa Balla miin nañ ko bu baax a baax a baax di nuyu nag El Hadj Modou mu baax mi nga xamante ni dafa fonk jigéen ñi yërëm njaboot yi tubarkalla di def lu baax ci ñun dox fi dox bu rafet tey jii ba loo fi gis mu taxaw rek loxo ma ci biir waaye nag. lu yëngu lu ne nag dafa am nag lu ko yëngal gis nga jigéen ñii ngeen fi gis jigéen lañu jigéen ñoo xamante ni ñu am fayda lañu ñu nangoo sonn di daw ci développement ba dara amagul nag tubaarkalla macha allah fii jigéen joo fi gis rek tubaarkalla mi ngi takk ndigam di liggéey tàllaluñu kenn loxo yaakaar kenn ku dul yàlla ak suñuy borom kër. ak toog nag di mun di xaar yàlla tubarkalla macha allah muy réseau dooleel jigéen de kër Cheikh Awa Balla jigéen ñoo xam ne dañ ñu faydawul seen bopp lañu tubarkalla jataay bi nga gis di fi gis ñëpp ay lingeer lañu ndax jigéen bu gardee valeur am xam di jiteem xam boppam lingeer la yéen yéenay lingeer ba le passé man ak le ministre Cheikh Diouf représentant de chaque cœur Cheikh Awa ak bu Goumoun waxtan nañu longuement li jëm ci Kër Cheikh Awa ak li jëm ci Goumoun ba rek rek ci nekk yeb dañ na len promesse fi amone jaar-jaar fi xew yeb c'était indépendamment de la volonté du ministre parce que du ressort ressort ministre bi ma ñaan fa ministre bi ci kanamu Cheikh Diouf mané ko su yalla defé tawfiq ba Macky Sall gagné té mom la ñaan yalla yalla nako yalla def situation kër Cheikh Awa la ak guumun nañ ko def problème mu état lu xam ne na ci jël loxoom ak yéen ñi fi ne ngeen trempé seen loxo dugal ko kër Cheikh Awa Balla ba mu àgg biir guumun pour tax frustration yi dañ man ak Cheikh nag fas yéene nañu nekk facilitateur nekk diggante état bi ak yéen ak population kër Cheikh ak guumun loolu rek am li ñeen ñaan bi ci des madame la présidente groupement féminin guumun dañ ma yóbbante ci yow nee nañu soxla nañ la sa jëm ak sa loxo nga jàppale len lolou yobante la na la ko wax ñun nak li ñu def ci dëkk bi deful moko sam bop askanu Tiwaawan nañ koy defaral ñun coalition bi ngeen gis coalition bu jara sant la bu jara ñaanal yalla xam ngeen ni yag na dem ci campagne mais ni ma ci taxé bi musuma ko taxé ci campagne électorale dama ci dem ba jeex ci tak nangatuma lekk nangatuma naan nangatuma nelaw ndax bëgguma ku ragal defet la te dama ci engagé te incha allahu bi yàlla nañ defal ndam fu élément pap ci bu nekkoon tey ci réew mi dëkk kër Cheikh aw Balla jàpp leen jege si na pour mën a xeex ci xeex bi dem ci ñiy xeex nag naan tout sauf pouvoir def na dañoo jàngul waxuma jànguñ ci nasaraan mais ci xel

di nuyu bu baax sama rak Pape Sidi Sall ak groupement yi nga xam ne ñoo fi nekk yi yëpp xam naa ne benn bopp ngeen parce que bu kenn waxee benn affaire rek boo demee seeti beneen groupement aussi même chose la day wax donc yéen ànd ngeen bokk ngeen yéenay yëkkatindoo yéenay dóorandoo fi mu nekk nii nag ñun ñoo soxla dañ leen soxla trop trop trop trop trop parce que Cheikh kër Cheikh Awa Balla bii man ci jigéen ñi laa yaakaar. gain gain bi ci jigéen yi laa ko yaakaar tey jaral nañu lépp nag bi ñu ko recensé ñu ni dix groupement moo fi am dix groupement yëpp fas yéene lañ leen finance yëpp yëpp yëpp nag moom engagé nañu engagé nañu na victoire bi ñëw rek six groupe six groupement yooyu lu ñu bëgg rek dinañ ko def dañuy jaayaat ku ci xam ak xàmmee dina yomb trop c'est entre l'avenir c'est entre kenn koo xam nañ ko war pour mu poursuivre parce que finalement mu ne nii ñi ngi ci rampe de l'émergence ak ñoo xam dañuy jéem koo xam ay programme am paréna, c'est-à-dire mu ñu correct, ko rek mu gañëwaat rek mu dérouler programme bi Sénégal gis seen bopp ak a xam ne expérience donc vraiment c'est extrêmement important affaire yi bu kenn nelaw fii ba ñuy voté ba jour bi nga xam ne que ñi ñaa ngi sànni carte koo mën a convaincre convaincre ko parce que Tivaouane bi dañ fee bëgg 80 pour cent te 80 pour cent 80 pour cent la ñu bëgg bu ko defee ñu bàyyi gars yi les cartes là ñu bàyyi leen 20 pour cent les cartes bojo bojo là ñu bàyyi leen pour cent parce que boo mënul xamoo mënoo xamoo amoo doole boo mën a boo mën a tëj sonnal nit ñi rek sa programme cohérent wul mosoo fi def dara lo xamni tek teg mën nañ cee suñu loxo donc vraiment baña sonal nit ñi parce que quand même président Macky Sall bi mu ñëwé ba légui dafa fekk Sénégal mu courant amatul won ba mu am émet électricité ndox amatul won tali yi délabré mel tali góomun bi mu ñëw lamp amatul jigéen ñi son mu ni mu def ay programme lan la jëk def feebar jaaxle jeex na ci nguuru président Macky Sall mu def CMU nga xam ni avec 3500 ñu joxaat la 3500 boo mënee boo feebaree nga mën a dem faju ji sans pour autant ngay xalaat ni boo demee hôpital doo am xaalis boo fajo bëri ko ci mbattal la puus mu tàkk puus mu dem bañ a puus mu dem. taal bu yàlla taal la sànni ci mbata gën fay ko. donc vraiment nañu bokk ci ñi koy taal nañu bokk ci ñuy puus. bu ko defee mu yóbbaale ñu bu ko defee programme yi ñu bëgg pour Goumoun programme yi ñu bëgg pour fii Cheikh Cheikh Cheikh nga xam ne PUDC baa ngi ñëw ñi manqué ndox ñu jox leen ndox ñi manqué courant ñu jox leen courant ñi manqué tali ñu jox leen tali ñu privilégié leen mu am programme spécial pour dëkk yi nga xam ne dañ leen war a rattaché ci Tivaouane dafa leen ay tali def leen loolu lépp programme boobu nañ ko gàttandu président Macky Sall kat du morom gars de du seen morom de liggéey na Sénégal de loo tudd rek loo tudd rek président Macky Sall fa mu ko fekkoon en 52 ans en 2011 ak bi mu yoree réew mi pendant sept ans yii multiplié na ko par deux yii multiplié ko par trois yii multiplié ko courant bi rek def na ay toolu courant fii ci département de Tivaouane ba wàññi ci 10 pour cent 10 pour cent yi nga économiser ko mu ñëwaat ci sa gafaka mu daal di yokk sa pouvoir d'achat